toujours. Mais la spécificité cette année, c'est de à vendredi. Un vendredi saint, Arafat, euh, un jour saint, dans un endroit qui est Arafat, vraiment le comble. Donc, Arafat, euh, cette année-ci, c'est euh, vraiment une chance qui n'arrive qu'une fois tous les ans. C'est-à-dire le jour d'Arafat qui coïncide

a été arrêté le nombre de pèlerins de l'extérieur. Mais de l'intérieur, il y a plusieurs euh, millions de personnes. On parle de chiffres, plusieurs centaines de milliers. Quand on dit cela veut dire que le pèlerinage cette année va aller jusqu'à millions de pèlerins. Donc, il y a un monde fou pour quelqu'un regarde Arafat. Il y a aussi, tout le monde est vêtu en blanc. Vêtu en blanc, à Arafat, euh, à une, un, une autre signification. Ça veut dire que le musulman, aujourd'hui, se donne, se donne à Seigneur. quand on lui rend la, euh, la, euh, son âme, c'est Dieu qui l'a fait par sa bonté. Quand il le reprend, il lui rend ce qui lui appartient. Donc c'est un geste très important pour les musulmans, mais c'est surtout un journée de recueillement. où les pèlerins, hommes et femmes, euh, enfants comme vieillards, se sont retrouvés pour pleurer, pour évoquer Dieu, pour demander vraiment la le pardon. Donc partout, c'est un endroit de, de quête de pardon. Euh, pour cela, il y a des, prières euh, de, multiforme avec le Coran récité, ça est là, avec des par le ciel pour aussi implorer Dieu. Donc nous, venant du Sénégal, venant de l'Afrique, nous n'avons pas manqué à implorer Dieu pour que ce problème d'Ebola que connaît notre voisin direct, la Guinée, notre voisine, la Guinée, mais aussi Sierra Libéria et Nigeria, soit vraiment Euh, abdiquer pour que le, le, le, Seigneur qui est capable vraiment à enlever ce, ce l'enlève à nos euh, voisins, mais aussi protège notre pays et les autres Donc on a pensé à ce problème de voilà, mais aussi à la, pauvreté, au défi des pays très longtemps et qui continue. Donc nous sommes en train de prier d'évoquer le bon Dieu pour que la clémence, pour que cette crise disparaisse. Donc, c'est ceci depuis le monde Arafat euh, pour, euh, Merci donc à LHC de la depuis Arafat, euh, lui qui revenait sur la journée d'aujourd'hui, jour de prière, euh, de pardon, de recueillement, mais également de retour vers Dieu. jërëjëf euh, mbokk yi ñu delluwaat rek euh, di leen ndokkeelaat ndokkeel bu baree baree bare ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun boobu ba léegi ñuy dundandoo Arafat yéen ña fa nekkul ba mel ne yéen a nga fa te loolu yëpp grâce à Walfadjri ak moyens yi nga xam ne dégagé na ko pour euh, servir leen ñu wax leen déwénati ñu ngi ci étape boo xam ne mooy étape bu mujj ci Arafat kon du ñu def dara lu may dal di delluwaat foofu ci Arafa fekk fa El Hadji Sidi Lamine mu war ñu tënkal doxiinu bés bi waaye itam mu defal ñu ñaanu Arafat El Hadji Sidi Lamine ginaaw bi ñu la ndokkalee ci turu sénégalais yëpp ak mboolem ñi ñuy seetaan euh, ñu bàyyi la rek nga indil ñu loolu nga xam ne mooy waxtu yu mujjee ci Arafat. jërëjëf euh, mbokk yi ànd ak euh, Walfajri TV comme ni ñu ko waxee rek mm-hmm. muy jamono ju daw yaram. jamono ji nga xam ni mooy waxtu yu mujj ya ujaaji war a jóge foofu ci Arafat mu nekk jamono joo xam ne jamono yi nanguk ñaan la yàlla nañ ko yàlla boole yéen ñi nga xam ne yéen ko doon toppee fii ci Walfadjri yéen ñëpp ñu ndokkeel leen bu baax a baax waaye itam sant leen ci tànn bi ngeen tànn Walfadjri mi nga xam ne moo leen koy defal si suba si boobu ba léegi ca fajar ànd ci équipe ba ñu teewal foofu ci njiital El Hadji Sidi Lamine Niass waaye itam ànd ci équipe technique bi fii ci njiital euh, El Hadji Modou Diouf ak Soxna Penda Diallo kon nag ñu def dara lu mooy euh, dellu ci arafaat fekk fa El Hadji Sidi Lamine Niass ci wax ci mujjee ci Arafat ci ñaanuk Arafat ak bu bés bi El Hadj Sidi Lamine Niass ñu ndokkee la ci tur sénégalais yëpp bàyyi la nga tënkal ñu euh, waxtu yu mujjee ci Arafat ak euh, ñaan gi. macha allah alxaaji Xasan ñu ngi ci minute yu mujj yi Arafat a ngi tàggoo jant baa ngi noonu di so lamp yaa ngi commencé tàkk ñëpp ngi taxaw di xaar kanu gi pour bu kanu gi tàkkee ñu daal di ubbi jëm nag Muzdalifa moo tax loxo yëpp ñu ngi taxaw. di taataan ñaan yi nit yi ñaan ak àjjuma joo xam ne mi ngi jeex te foofu di waxtu nangu ñaan moo tax ñu fay faral di fa ay wasifa di def ci ci àjjuma waaye itam jantal arafaat bi so nga xam ne mooy jeexiti arafaat moo tax itam ñu tàllandoo suñ loxo di ñaan allahuma inna nad'uka fi dawlatin karima tu'izzu fiha al-islama wa ahlah وترد فيها النفاق وأهله وتجعلنا بها من الدعاة إلى طاعتك والدعاة إلى سبيلك وربنا بها كرامة الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت ربنا خلقتنا ضعفاء نتجو إليك راجين عفوك ومعافاتك في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا لوالديه اللهم إنا ندعوك في دولة كريمة تعز فيها الإسلام وأهله وتخذل فيها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا فيها كرامة الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين احنا حنيسا ربنا طميسا وكان الله قويا عزيزا نحن فيك مثل الله نحن فيك مثل رسول الله نحن فيك مثل القرآن العظيم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم تقبل منا صمتنا وقيامنا وملكنا اللهم تقبل منا حجنا اللهم تقبل منا وقوفنا بعرفات وتقبله منا بعامل حياتنا هذه في مكاننا هذا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومن له حق علينا وعلى والدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة الداعي إليك اللهم من دعاك فلم تجبه ومن الذي استجارك فلم تجره ومن الذي استغاثك فلم تغثه يا غوثا يا غوثا يا غوثا أغث أمة محمد صلى الله عليه وسلم في وقتها هذا في ضيقها هذا أن وجدت اللهم ارفع عنا الفقر وارفع عنا الجوع وارفع عنا البلاء allahumma taqabbal minna ya rabbana ya rabbana ya xaaliqa alcawaalimi xul baynana wa bayna kulli zaalimi allahumma ansurna wasturna bisitrika aljamil ya rabbana ya rabbana ya rabba alcalamin إياك من بلاد بعيدة بذنوب كثيرة راجين عفوك الدائم راجين معافاتك في ديننا ودنيانا وأجلنا صلاح الأمور كلها لأهلنا ولإخوتنا ولمن طلب منا الدعاء نتوجه إليك راجين أن تتقبل منا اللهم هذه عرفات وهذا يومها وهو في منتهى وهذه شمسها وقد غربت فليس لنا إلا الدعاء اللهم تقبل منا يا ربنا يا رب العالمين اللهم لا تجعلها آخر عهد بنا آخر عهد بنا اللهم انصرنا اللهم اكفنا يا رب العالمين اللهم أنت مولانا وكن لنا وليا وكن لنا ناصرا خفيا يا رب العالمين تقبل منا إنك أنت السميع العليم الحسن ñu noonu di yëkkati nodd bi ñu ngi noonu itam di yëkkati euh, sami bi mu mel ni kon Arafat jeex na jant baa ngi noonu di lang di soo di tàggoo mu mel ni kon dañu wax ne njëwénati ñu ngi ndokkeel julli gi fuñ mën a nekk ci àddina di ndokkeel suñuy auditeur fuñ mën di nekk ci àddina ñoom ñëpp itam di leen wax ne njëwénati Walfadjri saxaw naa leen ci fajar fajar mooy sax fajar bi ñu jëm moo tax ñu wax wal fajri wala yaali na asrin fajar ji yàlla waat bis bi nga xam ne bis boo xam ne di ca capa capa cooli la yàlla tudd ko muy arafaat ajjuma bi nga xam ne moo gën ci bis yi dagale yooyu yëpp ñu ñaan yàlla taxaw ñu ci suturaal ñu ci defal ñu ci jàmm àddina ak jàmm àllaaxira innahu ala dalika alqadir ñu ngi koy ñaanal mboolem toog famille bi tekki bu groupe bi waa famille bi yëpp moom rajo ci télévision ci imprimerie ci commercial ci administration ci région yi mboolem ñi nga xam ne ay branche am lañ ñoom ñëpp ñu ngi leen koy ñaanal waaye ñu ngi koy ñaanal auditeurs yi ak auditrices yi di ko ñaanal mboolem forcé yi di ko ñaanal tam mboolem waa réew mi di ko ñaanal mboolem jullit yi di ko ñaanal imaam yi yëpp اللهم إني تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكلنا بها وليا ونصير سيدنا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير نبرات من لك من لك اللهم تقبل منا يا ربنا يا ربنا يا خالق العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام وسلام وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحاج حسن kon doy na ci ndoqale leen ci liggéey bu yaatu bu rafet boobu asalaamaaleykum wa rahmatullah kum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu eh, El Hadj Sidi itam ak équipe ba mu àndal foofu ñu ngi leen di ndokkeele di leen sant ci service public bi nga xam ne defal nañ ko askan wi kenn ku ci nekk soxla woon ko lool ñoom ñëpp ñu branché ci wal faj fajri di ko fa taataane muy loo xam ne lu ama am solo la service la boo xam ne kenn xamul solo ba fu mu tàmbalee fa mu yem te askan wi ci seen bopp. ci seen eh, taxaw ak Walfadjri ci faje gi ba léegi moo firndeel loolu kon ñoom ñëpp ñi ñaan ak ñi nga xam ne sax ñu ngi doon bëgg loolu waaye xamuñu fan la ñuy jaar ak ñi ko doon jéem ci sottiwul ñoom ñëpp yàlla na leen yàlla nangul ñaan boobu nga xam ne sànnee nañ ko foofu ci Arafat équipe boobu nga xam ne itam décentralisé nañu Arafat ba mu àgg ci seen kër yi ñu ñaanal leen bu baax a baax lépp lu ñu fa ñaan rek yàlla nangu ko tasaare ko mu nekk yiw boo xam ne ñu ak ñoo ñoom ñoo koy bokk kon euh, sëñ Kabir ñu bàyyi la rek nga euh, tëj ak mbokk euh, téléspectateurs yi jox leen rendez-vous déwénat incha allah. jërëjëf Oustaz Assane tabaarakallaahu xanaa di jaajëfal rek docteur président rek Walfadjri Bassirou Lamine ci liggéey bu am solo bi nga xamante ni tracé na ko ñu ngi jaar ñun ñëpp ñu jàpp ci ba mu egg si fii tey fa tabaarakallaahu gis nga fi mu ko tëjee moom itam ci ñaan li ñu doon wax ci ñaan rek ni ñaan rek moo am solo ndax loo gis rek euh, ñaan a koy doxal te xam na ni ñaan mooy ngànnaayu jullit te mm-hmm. xam na dara ëppul ñaan moo tax mu gisee li mu ràbb ci ñaan ji yëpp waaye yéene ko mboolem jaamu yàlla yëpp rek rawatina réew mi fa tabaarakallaahu ñu leen di ñaanal rek ñoom itam yàlla na yàlla nangul leen yàlla dellu si leen tabaarakallaahu ñu ñaan rek euh, ñu del si jàmm fekk fi jàmm bàyyi fa jàmm ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam gis nga bisu tey bi Oustaz Assane dafa am ñoo xamante ni dafa ñu mus a dem màkk fi mu ne tey am na ci koo xam ne nee ma maa ngi sol sama armal toog maa ngi toog muy ndeysaan sopp na bi ndeysaan soxna Aminta madame Sall soxna Aminta Racine Guissé mhm. ca Pikine ne maa ngi nii sol sama armal toog xanaa xamoo ne li ci yéeme mooy ñi ñi ñi mus a dem waaw ñoom ñoo ñoo gën a bëgg a dem wallaahi ndeysaan <laughs> au lieu ñu xajal ñeneen ñi sama ñoom ñoo gën a bëgg a dellu <laughs> bi ko daf ko wax sama yaram dafa daw nee na ma même jumaa ji maa ngi def samay naafi la ànd ak ñoom Mm-hmm. lépp lu ñu def rek maa ngi ah, nekk sama armal ànd ak ñoom fas ko yéene rek mm-hmm. ndeysaan ngir mm-hmm. xol bi yëpp nga fa yëpp nga fa wallaay ndeysaan dëgg la kon loolu rek la ñuy tëjee xam naa ni ak soppeeg am di jàmm yi mbokk yeeg ñi ñu doon ànd ak ñun ñëpp xam naa ni li ñu bëgg du fi xaj ndax waxtu wi jeex na ba pare di leen jox rendez-vous rek incha allahu déwén ak jàmm ñu àndaat ko incha allahu rabbi ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam eh, kon jaa di jaajëfal mboolem ujaaj ya fa nekk yëpp rek tabaarakallahu oustaz Pape Anne ñoom ñëpp rek yàlla na yàlla delloo si leen ci barke yonent bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf Serigne Kabir waaye équipe bi nga xam ne itam ca fajar ba léegi lu jiitu euh, ñeenti waxtu ci fajar. ñu ngi ànd ak ñun ci njiital El Hadj Modou Diouf. Mm. Euh, ki soxna Penda Diallo Guèye ak équipe bi ni mu yaatoo yëpp ndi Ramatoulaye Sall ak Aïssatou Diagne Iber ba ak El Hadj ak ñi nga xam ne itam euh, ñu ngi leen doon jàppale ci journaliste yeeg yooyu ñoom ñëpp ak équipe bu rajo bi ñoom ñëpp ci tënk lañu leen di mën a tuddee waaye kenn ku ci nekk yàlla na la yàlla yëkkati ba nga yëg ne yëkkati na la yëkkati sa njaboot ba nga yëg ne yëkkati na ko mm. ne leen incha allah yàlla am na loolu mën na ko sañ na ko te bés bi àttan na ko mm. euh, ñun ñëpp itam ne ku ci nekk suñuy njaboot yal na leen yàlla euh, yëkkati yëkkati bu dul ànd teg wàccet ba mukk yàlla def barke def naataange ci réew mi jàmm del si ñëpp nekk ci yiw ak ci yokkute wa kullu aamin wa antum bi xayr wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu